mbokk Samagal bi mbokk internet yi ñu ngi fii ci Saladam quatorzième édition fii ci CICES du vingt cinq fé vingt sept janvier au février tey ma taxaw waa Thiès kilifa gi nuyu naa la. maa ngi tudd Jabel Mbaye Jabel euh, nga ñëw fii ci Thiès euh, Saladam euh, si Dakar Saladam ñaata yoon nga ñëw Saladam. waaw Saladam moom bu fekkee exposition la moom c'est la première fois ma exposé fi quoi. ah mais daan nga ñëw di moom ba tey maa ngi visité. Mhm. Saladam bu am moom mosuma ko rate quoi. ah macha allah macha allah tey nga ñëw exposé noo gisee exposition bi ak liggéey bi. waaw waaw ça va dans l'ensemble vraiment xar yi am nañ qualité am nañ amélioration. Mhm. xar rafet nañ gars daal liggéey nañ vraiment. ok nga ñëw euh, sa bergerie mooy ban bergerie. bergerie bi mooy xéewal gi. xéewal gi waaw. macha allah waa kër Serigne Saliou ñu ngi nekk Thiès cité Khadim. ok quartier bi ñuy wax cité Khadim après R100. macha allah voilà. ok euh, li tax daa woo ñëw yaa nga càmm gi da nga nekkul woon càmm gi wala. si si maa ngi woon ci càmm gi mais xam nga Saladam moom niveau la. niveau waaw. te xam nga boo dee dajeeg say nawle da ngaa war a présenter loo xam ni ku ñëw naw la. waaw. nga liggéey la woon rek. liggéey la woon bon loolu moo waroon rek voilà macha allah waaw mais nag euh, gis naa exposition bi gis ay femelle ak maal boo xam ne moom dafa naa ni ah euh, euh, exposition bi moom doy na waar tey ñen nga indi ban ban ban famille nga indi. waaw waaw bon xam nga élevage moom boo ko waxee li ci jiitu mooy base femelle. waaw boo doonoo indi base femelle boo xamante ne nii composé na quatre femelles. quatre femelles yi trois yi ñoo ko juddul la bon ñu bokk benn papa. ok ñu recruter beneen femelle. boole ko moom moom lañ indi ak maal boo xamante ni espoir la mi ngi toll ci 18 mois quoi. voilà espoir la maal bi. maal bi espoir la waaw. mooy kan. moom mooy océan. océan. océan 18 mois moom nga indi woon sectoriel macha allah. waaw sectoriel moo ko indi mi ngi amoon 15 mois. waaw mois 15 mois mu am 18 mois. mu am 18 mois bu la ko espoir. waaw dafa fooq xam nga xar moom mën naa am 17 mois fooq am macha ah, allah foire bi quoi loolu ah, moo tax na ci espoir yi kii moom da doon taaral bis bi grand ah, macha euh, mhm. euh, allah xar bu rafet la waaw xam naa ni Océan moom il ko ci foire yi di ñëw de ah waaw incha allah incha xam naa ni moom euh, <laughs> waaw waaw incha allah rëyit bu baax vraiment rëyit ñi ngi tey moom Océan naka la ñëwee sa ko jënd non essayant moom judd la moo xam ne dama ko jënd à bas ok dee mu judd rek laa ko jëndoon quoi recruté woon ko pour mën a sayir base femelle bi ma liggéeyoon quoi. ok fu mu jógee woon. mi ngi judd benn bergerie bu ñuy wax Eden jur gi. ok Eden jur gi. Abdou Seye Abdou Seye macha allah macha allah. waaw ah, waaw moom ñoom dañoo mën beauté quoi yàlla. waaw ok tey mu ñëw euh, euh, naka nga gisee progression est-ce que liggéey bi euh, production gis nga waaw macha allah parce que ñu ngi ciy commencé am ay produits. waaw te production yi vraiment am na ci satisfaction. te mhm. géniteur bi ñu koy jënd loolu production donc moo mhm. taxoon. Mhm. ñu wut ko. mais yaakaar bu ñu ci amoon wax dëgg yàlla moom ñu ngi koy commencé wane daal. macha allah parce que am na mbote bu nekk ci biir box bi moom moo ko jur. moo ko jur voilà. femelle yi mu àndal ñan la parce que dinaa fi ay femelle yu rafet tamit. waaw femelle yi bii kàlla kan kan bii nii. Euh. waaw kii ñu ngi ko tuddee Mbenda. ak Faali ak Ngoy ñoom ñett ñoo fi nekk. Mbenda Faali waaw ñoom ñett ñoo fi nekk bokk papa. Uh-huh. waaw kenn ki yaayam doom Farouj la. kenn ki yaayam nekk doom Roi Bachir que la yaayam nekk Liliane benn femelle boo xamante ne nii mi ngi ak ñun. ok bon voilà ñoom ñoo ñëwee ci box bi. ok euh, kon euh, kii mooy kan. kii mooy Neel Déet Neel Déet doomu magistrat la. robu ñuul boobu doomu magistrat la yaayam nekk doomu latsukaabe. recrue la. recrue la waaw. ok moom ñu ñaata porté. moom normalement def na quatre porté quoi. quatre porté voilà ok euh, kon ñii doomu. golden golden yi ah. xar la boo xam ñoo ko yoroon a bas âge lañ ko recruté woon. ok moom tamit voilà. ngooy moom moom moom moom ñaata porte la moom ah. benn porte la defagul waaw allah mais sayeru na quoi tëbu na deuxième porte bi. ok hmm. en tout cas ay femelles lañ yoo xam ne da gis sax benn da ay ah. waaw waaw allah. Euh, kon liggéey bi foofu la toll. waaw moto bi nag koy jur. Euh, maal bi moto bi océan moo ko jur. océan moo ko jur maal moo ko jur quoi moom bientôt mo am 2 mois quoi. ok le 11 bii di ñëw lay am 2 mois. parce que ñu judd le 11 décembre. ok ok kon daal euh, sa océan instant bi moom rek fa nekk ci gétt gi. waaw instant yi moom mo fa nek quoi. moom mo fa nek comme mal wa ok est ce que la mooy objectif bi da ngay bëgg a liggéey moom tey sànq wala da nga bëgg a dugal beneen mu liggéey. wa bon xam nga moom xale la. waaw dañ ciy liggéey ko liggéeyee ko xool ay doomam lim ñu jox su boobaa ci ngay mën a beneen xar bi ngay dugale. ok parce que base bi muy beneen xar bi bi fiy ñëwaat ci base am la war a mën a xool. waaw pour liggéey ci pour liggéey ci. voilà euh, moom instant bi doomam yu góor amoo ko fa. si si am na benn bu fa ne ak bii ñaar moom trois ñetti doom laa ci amagul. yu ñaari góor ak benn bu jigéen. ok euh, bi ci mag bu góor bi ñaar mois la. boobu am na normalement six mois. six mois waaw naka noo ko gisee taxawaay. non ça va alhamdulilah. Hmm. dans l' ensemble euh, moom ça effectivement ah, yaakaar naa ay femelles yoo xam ni tey. Ah, ah. Euh, war na mën a jullu ko effectivement effectivement en tout ah, euh, liggéey bi rafet na kontaan nañ liggéey bi na kontaan nañ di ñaan yàlla tey euh, océan xëy na bés na ñëw mbokk ci champion parce que déjà à 18 mois nga wax 18 ah, ah. mois li mu wane ne dafa doy waar macha allah en tout cas mal la te ñu ngi koy xaaj ci bi lan mooy message bi ak noo gisee saladam bi waaw saladam bi moom ça va moom dans l'ensemble baax na organisation bi ça va foire la boo xamante ni foire internationale la mën naa ne mhm. parce que éleveurs yu bëri di ngeen fi moom am fi ay relation yu bees ci ak éleveur macha bon ak foire la boo xamante ne daal ku ci mën a ñëw ku yëpp kuy éleveur daal bon war nga ñaan yàlla ñëw ci parce que relation dina ci yokk sa visibilité dina ci yokk macha allah di ñaanal ñëpp di ñaanal éleveurs yi bon di wax ni daal élevage beneen affaire la daal lu neex la daal voilà doo ñu adresse beeg numéro bi waaw adresse moom bon ñu ngi dëkk Thiès. Kër Khadim. Mhm. villa numéro 393. numéro téléphone bi 77 la 523 66 51. jërëjëf waaye kontaan nañu ci. voilà jërëjëf maa ngi leen sant di leen gërëm.